bi ñu leen gisee mooy ba ñu gisee ba gis la nga xam ne mooy euh, bagage ya gis nañ ca mbàttu ga nag léegi nag atte bi na ngeen xool nan la mbokk yi di àndee ak ci euh, gis-gis boobu nag. لا يعقل أن يكون الصواع في رحل بنيامين لا تتصور السرقة من هذا الوجه البريء. gis ngeen la leen waxoon mooy. فتشوه euh, wóor na ni. mbusum Benyamin bi dara mënu cee nag ndax moom yorul kanamu sàcc léegi gars yi ne ko Yahuza ni ko wisital ñëpp rek léegi gis nga wisite nañ euh, ñu ngi noonu nag yàlla kon seet lañ la ngay seet. la mel ni ci bagage yu beneen lañ nekk nag di wër ñu xool aaya ban la àndal loolu mbokk yi bu ñu jëlee suurti euh, ilmu Yusuf gis ngeen Yusuf a ngi noonu di génn di dem pour nag topp leen seen ginnaaw comme que digaloon na soldaar yi ñu topp leen euh, aaya muy àndal falammaa jahhazahum bi jahaazihim ja'ala as-siqaayata fi rahli axiihi thumma istaxrajaha euh, fi rahli axi summa addana mu addinun ayyota alxiir innakum la saariquun qaalu wa aqbalu alayhim maada tafqiduun qaalu nafqidu suwaa almalik wa liman jaa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim wallahi qaalu tallahi laqad calimtum ma jinaa linufsida fi lardi wa ma kunna saariqiin qaalu fama jazaauhu in kuntum kaadibiin qaalu jazaauhu min man wujida fi rahli fa wa jazaau kadalika najzi zaalimiin kon gis nañu kii ba atte baa ngoog nag léegi kon gis nañu nattukaayu buur ba ca mbuusum benyamin ma tey allahu akbar اللعنة عليك بنيامين kii dana yéen yàlla rëbb la yow Benyamin gàcceel nga ñu. hey Benyamin. Benyamin. hal haqqan aqdamta ala sariqa. est-ce que dëgg la ni yaa sàcc. lii mooy ak fayam ak teraanga bi ñu defal yëpp. est ce que gàttal ñu ne ci teral gi ñu teral lan moo tax nga dugal ñu ci ràpp gi ay waay xaslu nga ñu waay gàcceel nga ñu. Hey. ah daa mel ni Seydina Youssouf agsi na وجدوها في رحله مع بضاعته ci seen bagage yi lañ ko gis hada huwa jazaa'u l-ihsaan ndax lii mooy fay ku jëf lu rafet lii lañ la war a fay نحن نطلب العفو من حضرة عزيز مصر ñu ngi jéggalu sëñ bi ñu ngi lay jéggalu nga baal ñu ليس غريبا أن يكون بنيامين قد سرق lu raar Benyamin moom du mënta bañ a nekk sàcc ndaxte magam am na magam bu sàccoon حزام جدنا إسحاق من عمتنا magam boobu ñuy wax Yusuf dafa sàccoon Ah, seen tur suñu maam Isxaaq kon kon beneen bu nekk ab sàcc loolu raarul yéen yéen daal yéen a ñaaw lu jëf jëfin lu ñaaw loolu ngeen di tuumaal seen mag jooju xam na ko. léegi jël leen ko ñu dem parce xam na seen charia te mooy ku ci sàcc rek dañ lay jël place waaja jël ko nañ dem. am na am na ñum natt léegi gis nga jafe-jafe day ñëwaat na wallaay ndeysaan kayfa asaana narji'u ila abina min ghayri binyamin léegi nan lañ mën a delloo suñu baay maada naf'al lan la ñuy def mu nekk musiba musiba bu toll ni ñun xamuñu ko qaddihim ala binyamin huwa annahu qad saraq est-ce que est-ce que li tax ñu jàpp binyamin mooy sàcc gi sax ah xanaa mu boole sàcc ak sàccu magam rek هذه هي المكيدة التي كانت تقلق أبانا lii daal moo jaaxaloon suñu baay pexe yi baa xam ngeen ni seen baay dafa jëloon ci yéen kóllëre dañoo waatoon ci yàlla ni duñu ko de duñu dellu si ubbi duñu ànd ak seen yàlla léegi ban kanam la ñuy delloo suñu baay suñu demee lu ñu wax suñu baay est-ce que suñu baay danañu nangul ñëpp feege nañ ko ñun duñu fen ñëpp gis nañ sàcc kenn dafa leer. كانت عمتنا فائقة قد شدته إلى وسط ñun ñëpp xam nañ ni seen tur googu ñuy wax. suñu bàjjen moo ko takkoon ci ndigal Yusuf waaye di woon ak sàcc dama yaakaar ne keneen moo ko dugal ci mbuusum Benyamin bi rek déedéet loolu mënta nekk mooy sàcc bi rek ndax ci mbagaasam lañ ko fekk yaa ngi ni Yusuf tuuma la nañ ko ci sàcc te musul woon a sàcc ñu dem ba هذا هو العار أقسم لكم loolu mooy ak pertaange dëggantaan علينا أن نقصد قصر عزيز مصر ولا نرجع إلا وبنيامين dañoo war a delluwaat ca pale ba waxtaan ak waxtaan ak borom borom pale bi إلى أرض كنعان إلا بصحبة أخي بنيامين man du ma dellu mukk lu ma ànd ak sama rakk Benyamin فلا ندري أنرجع أم نبقى اصبروا قليلا xamul nañu def wala yéen في إرجاع بنيامين nee nee nañ xaar leen ñu rek ñu dem jëli Benyamin kon gis nga yeneen ñi nga xam ne ay mbokk lañ vraiment daal ñun njabootu yàqu bi sonal nañu lool léegi ñun buñ lañ xaar tuuti rek buñ ñëwoon ñun ñibbi parce que bu ñu tardeel suñu yoon yu passé noonu lañ moo tax mu ni fa bi awiyatihim qabla wiaai axihi summa staxrajaha min wiaai axihi kadalika kidna li yusuf ma kaana liyakula axaahu fi diini almalik illa an yasha allah narfau darajatin man nasha wa fawqa kulli di ilmin افعل شيئا احلف عليك بالله ان تفعل ما لي واتال سي يالا nga dimbali ñu abadan bul gàttal ñu dimbali ñu rek mënu ñoo delloog noonu شيء افعله من اجلكم man mënuma def dara ngir loolu yéen mënuma leen mënuma defal dara moom day yem place ah, yàlla nee na gis nga technique bi Yusuf tëral mooy bi ñuy visité dañoo njëkk a visité bagage ñeneen ñi bàyyi bagage su rakk ji bañ ñu mujj bagage su rakk ji bañ ne duñu ko visité far ñu fekk ko ndax di ngeen génne benn yamin ñun mënuñoo dellu de am nañ kersa ci dellu suñ kanam baay ñun faaw ñu de mënuñoo dellu lu mujj daje kilifa gi benn bi mooy na ko bàyyi wala mu jàpp ñun ñëpp. nee na ko ah dinaa man su ma dem man ci jàppale danaa ko def nee na ko nee na ko seen rakk ji li mu def daa rëy nag. لو رأيته bu ñu waxtaanee moom dana dana nangu. جناب يوزرسيف العظيم كان يستشيط غضبا. ah daa meroon de. yéen xaar leen rek. ma seet man la laa leen mën a defal. léegi dinaa dellusiwaat. waaye kilifa gi nag meroon na moom. nga looloo tax yàlla mu ni technique boobu lañ bàyyee ak Youssouf nag pexe moom lañ ko bàyyee ngir mu am pexe moo xam ni moom lay mën a jëlee rakkam ji dugal ko ci ngóor gi comme ni mu nekkee buur. waaye tamit noonu la ñu euh, maye Yusuf ci xel ma mu fexe ba récupérer rakk ji daal di koy jëlaat yàlla nee na noonu nag la ñuy yëkkatee daraja yi nañu ñi ku am xam-xam rek am na ko la raw nee na da ngeen di dugal seen jaas yi nag seen arme yi denc leen ko ci ngeen dugg seen ak ndànk parce que war a jàll jàkkaarloog buur bi moom yor sol yor yor yor yor sa sa ngànnaay kooku wóorul léegi nag ña ngay dellu pour ñaanin yekk nag ndax ñoom nee nañ mënuñoo delloo noonu loxoy neen euh, ndax kóllëre gi ñu fasante woon ak seen baay ak waade yi ñu waatoon ñu delloo noonu daal du baax ci ñoom faaw rek ñu delloo Yuusuf euh, Benyamin wala ñun ñoom ñëpp ñu wala leen tëj léegi ñu xool ndax loolu dana yombam net moo tax état ku bari pexe la bu ko yàlla joxe doole noonu la ko joxem xel état lu mu bëgg a def lu bëree bëri yàlla mën na ko cee dimbali taxaw leen nag xaar leen ma seet lu may def hal ji'tum bihim ndax andi ngeen nga gaa yi ñëw nañ laqad qulna lahum nahnu sanas'a sa'yana nee nañ leen daal nañ leen dimbali. amaana waa ji bàyyi ngeen dugg ah, ñu ngi ci bunt bi di xaar ndax da nga leen jox ndigal ci ñu dugg. هل تراهم شعروا باصطناعنا هذا الأمر؟ est-ce que ba ba dégguñu ñu. يبدو أنهم لم يشكوا بأي شيء. yow sikki sàkkawuñ ci dara rek. أخرج بنيامين من هنا. yeneen Benyamin dugal ko fële. Benyamin moom xel mi dal na parce que moo xam ne nii euh, moom amul benn problème ndaxte magama sàkk pexe yi ñoom ñaar déggoo nañu. مروا نفرا فليستعدوا تحسبا فقد يقدمون على فعل أي شيء إذا ما انقطعت آمالهم déggalal ñenn ñu ñu ñu jéem a préparé ndaxte bu seen yaakaar tase rek mën nañoo xeex ñoom ñoom da nga leen gis noonu xeex dañ cee gaaw parce que bi nekkee xale ba léegi àll lañ xam ak xeex rek ak ak ak bëreeg yooyu rek lañ xam bu seen yaakaar naree tas rek mën nañoo def dara kon nañu wut armée bi ñoo renforcer sécurité bi طبق قانون الكنعانيين وديانتهم ci tëralinu Kanaan dëkk bi li ñu tëral mooy من أن يصبح عبدا ku fi ku fi sàcc da ngay nekkub jaam loolu mooy suñu tëralinu dëkk كان قولكم أنتم أليس كذلك yéen mi yéen a ko waxoon sax yéen waa Kanaan عدد كبير من العبيد ay jaam yu bëree bëri est-ce que doo ñu jël ñun ñëpp سبيل بنيامين ca nga ca nga bàyyi yoonu Benyamin nga bàyyi Benyamin ñu nga jël ah bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xoolul loolu booy moytul ak càcc gi mën na mën na mën naa répété waat bàyyi daal tàqalikoog Yusuf du ko mën mukk ah Benyamin ndax doo dugal ci mbégte ci xolu góor googu dimbali ñu dimbali góor gi ah ku def lu rafet kay lu rafet lañ la war a fay te man lu rafet laa leen defal. seen ñaawteef ngeen ma fay. ينبغي على أخيكم أن ينال عقابه. seen rakk ji dañ ko war a duma dañ ko war a mbugal. فقط أن أمرهم فلا يعذبوه. xanaa li may digal gars yi rek ñu bañ koo dóor rek. waaw ñu bañ koo dóor bañ koo kii waaye nag ngeen ko téye. te ngeen a jël kenn ci ñun palaasam. jël leen ma man. te ngeen bàyyi ko dimbali leen ma bàyyi leen ko amaana mu dellu ci góor googu ndax xelam dal ku ter ku mel ku tedd ku mel ni yow ñaan googu duñ duñ ko bañal lan ngeen yaakaar ni moom la leen di defal. waaw Benyamin ak keneen kay ñooyam rek ñun soxlawul ay jaam. أعوذ بالله أنا إنما وجدت متاعي عند بنيامين maa ngi ñaan yàlla musal ma ci loolu li ma bëgg da man daal ki ma fekk ci sama ba sama matériel ki ma ko fekk ci moom kooku rek laa mën a jël su ma jëlee keneen ke damay tooñ parce que tooñkat daa war a réccu ak réccu dafa war a feeñal ak réccoom bu ko deful mën naa su ko defee mën naa mucc ci mbugal nag waaye bu ko deful mën na jëfandikoo seen rakk ji ba tey wanewul ni moom dafa réccu kon moom dañ koy fay fayam loolu dafa yomb daa war a tuub tuub kay yomb na est-ce que tuub yomb na. est-ce que tuub dina yomb est-ce que tuub mën naa yombe noonu. lakinani aarifu qawman qad adnabu qadiman man xam naa aw nit woo xam ne def nañ bàkkaar ba tey jii may wax ak yéen tuubaguñ am na ñoo xam ne xam naa leen aw nit lañ def nañu bàkkaar waaw bàkkaar bu rëy ca ba tey tuubaguñ ah xam nañ seen bopp wax ji ku ko moom allahu akbar def bàkkaar bu rëy bu dëgg ba bi jaaw toll ba tey nangoo woo tuub te lañ ci yàlla musal tu baax na lool gis nga wax na leen dëgg nag dem na ba leen fa gaa yi nañ ko ñun amuñu lu ñuy doon nañ dem nee na bu ngeen fi jéemee yëkkati seen seen armée yi ngeen génn fii ku fi génn ma parce que gaa yi dañu bëggoon làmb surtout yow za moom di waaj a làmb arme di waaj a génne jaase mu ni ko seen seen loxo yi bu yëkkati ko bala mu àgg seen nopp rek ma wàcc leen yéen ñëpp. maanaam ma fàttali leen ñëpp suñu bàyyi daal dañoo fa ne daw moom kóllëre ci yàlla dañoo waxoon duñu dellu lu dul Benyamin ànd ak ñun nan la ñuy bàyyi ak Benyamin suñ ginnaaw surtout nga xam ni taal nañ suñu xolu bàyyi ci tàqalikoo Yuusuf. وأن عزيز مصر قد أبقى عليه جزاء له في ذلك الزمان كنا في كيان ولم ندرك قضاء ما ارتكبناه من ظلم أما الآن بعد أن فقدنا بنيامين وسنرجع إلى أبينا وليس بنيامين معنا أصبحنا ندرك عظم السوء الذي ارتكبناه بحق أخينا mooy lu ñaaw lañ defoon suñu rakk ju njëkk ji rek moo feeñaat fii rek ñaaw teef googu ba tey moo ñu topp rek waaye daa mel lañ doon bëgg amul de ma alxabar laawi luy xibaar bi yow laawi an Benyamin bàyyiwuñ Benyamin joxuñu leen ko alam tuxbiruuna anna aziza Misr rajulun sharif wa dhu xanaa du yéen a waxoon ni kilifa Misr kilifa gu baax la ku am jikko la laa adri lu tax loolu man xaw ma laa adri tagayyara kullu shay'in faj'atan lépp lu ñu gisoon ci moom ci mbaax soppeeku la nim ñu nim ñu meloon daal bi mu ñu doog a dalal ak tey ji bokkul léegi lan ngeen di def yéen ñu ngi leen di xaar ba léegi ana dañuy dem wala dañuy. ana lan adhhaba ma'akum min duni Binyamin. man mënu maa dem ci baale ma Benyamin man mënu ma loolu du ma dellu mukk dem leen yéen mën ngeen a dem mu ni mu ni Benyamin ñàkk gi ñu ko ñàkk rek doyul. dem leen ngeen ni sama baay laawi moom day des day yóbbaale Benyamin wala mu des fa dee fa rek laawi dem leen dem leen seen mbokk yi ñu ngi xiif di leen xaar. lan lañ lay fekke bu ñëwee Misra suñ demee ca caravane ya mooy ca njëkk ya nañ daje foofu yéen dem ñibbi leen rek man moom sama ngor moom mooy moomay ñibbi nañ leen dem. tey gis nañ la ko yow Ouza waxoon ñàkk Benyamin kay doy na waaye buñ la tegee yow tamit loolu mënta nekk mun ko dem leen ngeen ni sama bàyyi daal. laayo moom nee na du del si mukk lu dul mu indi la benyamin nee na man tiit naa ci sama baay de yow dong mën la woon a ñàkk léegi ñun ñaar ñëpp ñan la ñuy si baay ñàkk ñun ñëpp dañoo war léegi dañoo war a def dara ngir yàlla boole ñu nag <laughs> jël nga ma ba tey defaat leneen. fa sawfa yajmacu allahu chamlana bihi qariban. yàlla danañu boole njabootu Yaaqub yëpp incha allah. man wóor na ma ni suñu bàyyi du mën a muñ tàqale ko ñun tàqale ko ñun. suñu bàyyi loolu su ko neexee dana ñëw ñun ñaar ñëpp danañu gis. wa kayfa dalik. loolu nan lay mën a nekkee. atadkuru bil ams qabla an naqbida alayk démb ñu lay balaa ñu lay jàpp xanaa waxtaan noonu la mbiru sama maam Ibrahima waaw ci sacrifice bi mu defoon ci Ismaïl. فهو قد ضحى بمكانة إسماعيل في قلبه حتى حظي به لكن أبانا نحن لم يضحي بعد بأي من أحبابه suñu bàyyi kenn ci ñun sacrifié ko ca Ibrahima sunu sunu maam daa sacrifié woon kon suñu maam kon bàyyi faaw mu def loolu. أولن ينتهي هذا الفراق xanaa taxalikoo bi doyul looloo tax nag sama yàlla doxale woon sama diggante sama baay ñu taxalikoo kon dañuy jokkoo après ginnaaw bi waaw waaw dana am ginnaaw bi mu ñàkkee mbooloo mi ci lay dajaloo njabootam yëpp danañ dajal waaye il faut mu ñàkk comme na ma Ibrahim ñàkkoon Ismaïl noonu la ñu suñu baay di ñàkkee dajaloo doo ko war a amaat nag ndeysaan waaye Seydatuna Zuleyxa noonu. أسينات يو أمغا شوفيل سي من لول الرأفة والمحبة هو يوسف أتظنين أن الوحيد فالناس كلهم جميعا قد انصاعوا له وعقلوا أزمة أنفسهم بعقال مشيئته jokk na ci Yusuf man maa rey Yusuf bi mu nekkee xale maa ko roy maa ko yar xam naa xolam bu ñeewante ba ak xolam bu yaatu ba. waaye nag. Euh, كان يفيض بالحب على خدمه وكان محبا للعبيد. ku bëggoon jaam yi la. ku ma bëggoon la moom Youssouf. يوسف يكن لك المودة في قلبه. baa xam nga ni Youssouf bëgg na la ci xolam. gis nga ndaw saa koy dalal rek pour mu mën a dalal Youssouf. لم يفصح لي عن ذلك. Mhm. loolu nag leerul moom. لكني عاينت ذلك في نظرات يوسف. man daal gis yi may gis xool yi may xool xam naa ko. ndax doo jàkkaarloog cofeelam googu. ndax doo ko accueillir. ah wó wóor ma de xaw ma ndax maa ngi ci mbëggeel ga am déet ndax cofeel ga ma amoon xaw ma ndax mi ngi ci man ba léegi man cofeel googu yëpp dañ na ci man. xaw ma nag Youssouf yonent bi yàlla la. bëggeel gi mu bëgg du jóge ci bànneexu bakkanam waaye ndigal lu jóge ci yàlla. moom du def lenn lu lu jóge ci yàlla ndax xam nga ni feeñal mbëggeelam ci man loolu ndigalu yàlla la. امتداد بصرك وعودة شبابك كان قد تلقى أمرا بالزواج بك. nee na laataa muy ngay mel nii xalaatoon na denc denc la. واجب علينا. ca topp ndigalu yàlla yàlla nag dafa war ci ñun. لكني لا أمرا سمعت. man daal dégguma dara ci yooyu nga waaye aw ma benn cofeel bu ma am. وبت لا أدري ماذا سأفعل إن أفصح لي يوما. man xaw ma it ba tey lu may def ci wàllu mbëggeel daal xamatuma ko man daal xamatuma mbëggeel xaw ma ndax dinaa mën a boole bëgg kii bëgg yàlla ak bëgg keneen فإن نفحات الرحمة الإلهية لا تهب دوما waaye yërmandeeg yàlla du ëpp lu dul jàmm أن تبتعد عن هذه النفحة زليخا kon moytul moytul sori yërmandeeg yàlla ndaxte yàlla bu joxe ndigal dañ ko war a def Zuleyxa nee na fi ma toll xamatuma mbëggeel xamatuma nobel te xaw ma ndax est-ce que bëgg nit dinaa ko mën a boole bëgg yàlla yàlla maa ngi lay ñaan sa yërmande nga soril ma lépp loo xam ni day waral sa mer cey mbokk ñu bàyyi xel nag du question day Yuusuf dafa topp ci comme ni nit ki toppee déedéet topp ci de moom ndigalu suñu borom rek la war a wéyal ci mu takk ko da ko war a takk soxna ci ndigalu yàlla la waaye nag du Yuusuf day topp Zuleyxa ak ngirum nobel wala mbëggeel wala yooyu déedéet ndaxte moom ab yeneent la yàlla daf koo seetal ci lépp loo xam ne ak manqué la yonent yëpp noonu leen yàlla melal kon ndigal la lu muy jële ci yàlla pour ndigalalu ko suñ borom jox pour mu war a takk soxna si ca loolu ndimbal la ci soxna si loolu nag ci la asinaat muy aawoo xaar yi di waxtaan ak ci Zuleyxa pour mu jéem a naap xelam ak xolam ngir jéem a dajeeg Yuusuf Zuleyxa ni ko nag ah, man nag yëgatuma ak mbëggeel gu may bëgg nit ndaxte jàpp naa ni ki ma bëgg yàlla Euh, xaw ma ndax sama xol mën naa bëgg mën naa boole bëgg nit ak bëgg yàlla foofu laa toll kon ñu jàppee ko foofu waaye tamit ñu bañ a jàpp ni Youssouf mooy ñëw ngir bëgg léegi xaar comme ne Zuleyxa doon doxe ci ginnaawam loolu du déggin woowu waaye ndigalu borom bi rek la ko yàlla moom lay def mbokk yi waaye waa Kanaan gis ngeen ñi ngi xaar ba léegi ñi ngi naan ah waaw ñee moom daa mel ni gisuñu am na ko ci manqué de gars yi ñëw nañ wasalu laqad jaa'u ay waay suñu mbokk yi ñëw nañu waay allahu akbar day góor gi de moom ndeysaan gis marhaban mbokk yi mel na ni dellu dem ga ñu demoon yóbboon Yusuf sànke woon ko wàññeeku waat ñemewuñoo ak si ñu ne dañuy bàyyi ba guddi doog a ñëw ci dëkk bi ndax mënuñoo jàkkaarloog seen bàyyi loolu daanaka moo feeñaat fii nee na yoon wi daa gën a gudd lan la ñuy wax suñu bàyyi suñ demee ah daa mel yoon woo la ñu jaaroon sànke woon Yusuf ba ñëwoon ñëpp gis ngeen guddee lañ dugg si woon ak seen i jooy yoo yoo xam ni du jooy dëgg waaye tey nag ñëw nañ ñëw ñëw goo xam ne ñëw dëgg la ndaxte jël nañu ëkkale ci ñoom waaye euh, la ñu gis rek la ñu wax mooy euh, wa ma shahidna illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaybi xaafidin mënuñoo seede lu dul lu ñu gis waaye xamuñu kumpa nag waaye ana sama sama sama bàyyiteex Benyamin anamu sa yahuda ana laawi bu leen jaaxle mhm. ñoom ñaar ñu ci jàmm ñoom ñaar yëpp benn Benyamin ak Yahuza yëpp ah ak Lawi ñoom ñëpp ñu ngi ci jàmm. cooy ndeysaan. <laughs> ma salaama. ila liqa. ma salaama. <laughs> mbokk yi ñu bàyyi xel ci seen jotaayu 42 bi muy ñeent fukk ak ñaar dañoo waxoon 41 waaye 42 la ñu bàyyi ko xel ñeent fukk ak ñaar la moo tax ngeen noppi wax leen. limaada la tatakallamuun lu tax waxu leen. ay lu ñuy waxaat. ndax bu njëkk ba ca Yuusuf dañoo waxul lu dul dëgg. dañoo waxul woon lu dul dëgg. ana laaj. maada xalla bi Benyamin Benyamin lu ko dal wax leen cay أي مصيبة أنزلتموها بي هذه المرة؟ nee na ban musiba ngeen dalaat wàccewaat sama kaw Benyamin wa Laawi ana seen mbokk yi Benyamin ak Laawi لماذا يتوجب علي أن أتهيأ للمصيبة كلما شددتم الرحال للسفر lan moo tax saa yu ngeen ñëwee rek may xaar musiba ci yéen يا أبي bàyyi bul jaaxle لم يقع أي مكروه صدقني lu bon dalu leen بنيامين ولاوي كلاهما حيان سالمين بنيامين ak Laawi yëpp ñu ngi ci jàmm. حدث أمر سيء لن تصدقه. mbir mu ñaaw moo xew loo xam ne buñ ko waxee doo ko gëm. لم نصدقه نحن. comme ñun mënuñu ko mënuñu ko woon sax gëm. li xew daal suñ la ko waxee ko gëm. ndax ñun bi mu xew mënuñu ko woon a gëm. لماذا لا أراهما معكم. la moo tax ma leen ñoom ñaar wax leen li xew. لأن بنيامين أصبح عبدا لدى عزيز مصر بنيامين ليك نك أنا بجام قد سرق فما كان من عزيز مصر إلا أن أبقاه عنده هناك بين عبيده تفرسات كبور بدأ لكي جلنا توسلتم كي أرسله معكم أما وقد بالسرقة فقد صار ابني لما كو يوني وانت جامك سلام جيل كي تومال لكم من أنجاس أيوة يتسكرين يلنا لين يقذفون أخاهم بالسرقة اهدأ يا أبتي نيجي تومال سين ركب السات ما عليك تسأل القافلة التي أقبلنا معها su la neexee laajal laajal laajal caravane yi ñu àndaloon mooy njëg yi bu Benyamin du sàcc loolu dangeen koy tuumaal rek nee na ko ñun moom ñoo ko gis buñ ko gisul woon ñun duñ ko gëm ñun ñi di seen i mbokk waaye looloo am nag wax dëgg waaw looloo wér de gis nga chef de village bi ci la àndoon nee na ñun ñii duñ bokkuñu ci sa say doom waaye sàcc gi moom ñëpp a ko gis moom loolu rek xanaa moo xaw a wàcce góor gi day nee na déet waay déedéet معذورون إن جهلتموه أما إخوته فيعرفون nee na yéen yéen dinaa leen baal bu ngeen ndax xamu leen ko waaye mbokk mi xam nañ ko xam nañ li sàcc kooku mënta nekkul sàcc lan ngeen def laaw yi laaw yi nee na moom nee na du jël si mukk lu dul Benyamin mu ànd ak moom nee na moom des rek la fa man nee na ko seen xel yu feebar yi. waxi caaxaan yi rek ngeen di wax saa yu ngeen xamoon naa ne di ngeen tànk seen rakk ji mu ni dëgg gi yàlla xam na ko waaye li feeñ daal li feeñ daal mooy mooy ndabal li buur bi doon natte moom ñu ngi ko fekk ci saaku Benyamin nee na dama leen ko ba àndaloo ngi pour ngeen wuti ak dund ndax lii mooy fas kóllëre ay waay yéen samay doom toujours yéen a ngi indi loo xam ne day tax ma gën leen a sori. وحسرتها على ولدي بنيامين ولاوي اي واي ñàkk naa sama ñaari doom yi Benyamin ak Youssouf كيف لكم ان تخلفوا اباكم الشيخ وحيدا lan moo tax toujours ngeen ngeen di teg seen an asbir ala alami firaqicum wa baadikum yéen kay dama war a muñ ci tàqalikoo yéen ba faaw rek kullama aayantu xaybatakum saa yu ma jàkkaarloo yéen rek ngeen andil ma musiba di naqaral sama xol mu ni damaa war a jooy ay deret sax bañ a jooy ci ay rangoñ damaa war a yuuxu ba dee rek ay waay samay soppee jënd ngeen lii jënd ngeen lii bëggeel ak cofeel ci sama xol dara de satut naqar rek ngeen duy sama xol yi ba mu fees dana ko bàyyi njàqare ji yëpp jooy yi ngay bàyyi nag ya bàyyi bàyyi di nga def ci fàttali ko Youssouf ba nga mujj nekk ba nga mujj dee rek alku ñu ngi lay waatal ci yàlla ndax doo bàyyi jooy ay ndeysaan ah mbokk yi jaalooti na de xam nga ni day njaboot guy def ni seen wayjur toujours rek su góor gu mel ni yaakaar naa ne boo dee am jàmm day baat na tukki dootoo am jàmm loolu nag moo ci feeñ génne ci turu yahuda woowu ci la yahud yi génne yàlla nee na yahud yi ñoo gën a bon ci kaw suuf ba àddunay tukki yéen nag moo leen topp ay waay sama dund amatul neex da ngeen maa waroon a bàyyi ma dëkk ma dëkk ca baytul ahzan rek ndax sama coxeel حتى أضيف إليه ألم غياب أخويك بنيامين ولاوي ah laawi day ñàkk naa ko ñàkk naa Benyamin في صدري say mbokk sànni nañu safara ci sama dënn bi أيامي إلى أحلك من الليالي المظلمات sama we sama bis yu weex yi ma dese woon def nañ ko bis yu lëndëm kër yi عزيز أبيك ay yow mi tedd ci baayam mu Yusuf est-ce que ndax da ngay des ànd ak ñii ci lakk gi ñu lakk sama xol rek ndax da ngay jël suuf di ko këpp ci sama kaw ma mel ni ku nekk ci biir bàmmeel rek ah mi ngi jokkoo ak Yusuf direct nag la ñuy wax ak tarbiya min wara il hijab wax woo xam ni yaa ngi wax ka nekk fu sori amaana nag da ngeen jokkoo nee na ñetti fan ak nii sam. ñetti at ak ñi sama papa lalu rek nangut a génn. alam taqulu min qabl in aziza misr atufun wa saxiyun nafs. xanaa yéen a waxoon ni borom kilifa misra gi dafa baax dafa dafa la la la la biir. nee na ko loo lépp a ngi doon dox ci jàmm. waaye ba ñuy ñibbi nag ah ci la Benyamin sàcc ga daal di feeñ. ku ni Benyamin du sàcc ñëpp xam nañ jub sàcc wax leen leneen man xaw ma lu xew. dëgg xawma li xew cay gis nga demaan nañ lu toll nag ummi هل صحيح ما يقوله أعمامي أن أبي قد سرق؟ est-ce que sama sama baay tax li ñu wax nii. أبوك ليس للسرقة. kii dafa sàcc est-ce que dëgg la. لا أدري ما البلاء الذي أنزلوه به sa baay du sàcc. أرادوا أن يخفوا جريمتهم باتهامه بالسرقة. ñoom ñoo def li ñuy def ba pare tuumaal seen baay. naam lakin al-jamii qadra as-suwaa' alladhii axrajuuhu min rahlatih waaye ñëpp dañoo gis nag nattugaay buur ba ñoom ñëpp a juum su ko gisee ñoom ñëpp a juum illaa suwaa'an dhahabiyyan famaa adraanaa annahum lam yadussuuhu fii rahlihi est-ce que ñoom denc nu koo tax ci biir saako bi waaw looloo tax kay bu ko ñëpp gisee kay sabaay mënta du wor du wor sabaay Benyamin du wor du sàcc amaana ñoom ñoo ko ci dugal rek. ana arju an laa yakuuna makruuhan maa qad halla bi abiihi man daal li wàcc sama bàyyi daal yàlla bu mu nekk lu bon man kon man dootuma nopp soo ma leer. ñëpp xam nañ Benyamin wóolu nañ. waaw bu dul sàcc kay léegi lan moo lan moo tax lan moo tax nattukaay bi nekkul ci saako ñeneen ñi ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk yoon moom magam Youssouf ay sàcc lañ. dañoo sàccoon dañoo sàcc seen baay ci suñu baay dañ koo sàcc ñoom ñun dund nañ ay at mënuñoo jot ci suñu baay ndax ñoom ñaar ñoo ko sàcc maanaam seen suñu xolu baay lañ sàcc ñoom sàcc ñoo sàccoon tamit seen turu suñu maam la ñoo sàccaat it nattukaayu buur bi ñoom ñaar ñëpp ay sàcc lañ. baay est-ce que Benyamin suñu baay Benyamin est-ce que sàcc la dañu wax dëgg nag. tey ba tey mbir mi kenn mënu koo dëggal. ماذا تريدين؟ لقد جئتك بالطعام يا أبتي. لا lekk laa lay indil soxlawuma lekk. لن أبرح هذا المكان حتى تفتح الباب. du ma fi jógee lu dul nga ubbi bunt bi. xiifuma demal. أرجوك يا أبتي. أرجوك baay yaakaar nañ la dimbali ñu waay baay. ubbil ñu bunt bi yaay ndeysaan ah, këpp na lekk ga de ji gumba na gumba na bàyyi lu nekk sa bët yi lu xew bàyyi loo def sa bopp sama bàyyi bëti bàyyee weex na gumba na bàyyi jaare dafa gumba ah musi kon nattoom yokku na jafe-jafey bàyyi yokku na bàyyi jaare dafa na gumba ginnaaw natt bi ñu ko tegaat tafaddal wajlis huna ñëwal kaay toog nii ah mbokk yi gis nga beneen a ngoog yàlla ñaala musal ci lii xale yi nañu moytu ñun ñëpp merloo suñuy way jur ndaxte mën naa alak am réew waxuma la jëmm lan moo tax bàyyi ngay teg jafe-jafe yi sa bopp allahu akbar lu xew Yusuf tey ndeysaan allahu akbar góor gi mën a di mbokk yi ulay yusuf ay sama doom yusuf la jaajëfal ci yow xabu abi ma alladi jalabtahu ala nafsik bàyyi loo def sa bopp كم سألناك الكف عن البكاء لقد بكيت لسنوات فأذيتنا وأذيت نفسك على السواء هل باي جوينغا أي أت لورنا لورنا سبب لقد أغناني الله عن الحاجة إلى عطفكم دعوني بمفرتي yàlla daf ma dimbali ma mën a i'tikaf kon yéen dem leen bàyyi ma rek loolu rek laa leen di ñaan bàyyi ñu la war a dimbali <laughs> dem leen jóge leen dem leen <laughs> اخرجوا وخلوني مع نفسي <laughs> فلن أسمع دموعكم وبكاءكم ولا أعطيكم كان جوي من جوي قومكم اسمعني أرجوك demalal bàyyi déglu dégluñu rek bàyyi déglu ñu ñu wax la dimbali ñu bàyyi dem leen dem leen dimbali ma rek dem leen rek ndeysaan allahu akbar alañ teela musal la wala quwwata illa billah cay ndeysaan ah mbokk yi xam ngeen ni lii histoire réelle la ay waay ay waay woo naa sama pertaange ci sama doom Yuusuf ak sama doom Benyamin ak sama doom yi ñuy wax Laawi mbokk yi ñett ñoo ñoo gënoon a jege nee ko bàyyi di gumba ba di weex na tàll léegi gisatul dara sa baay si baay dootul gisati démb ba léegi mi ngi jooy nee na maa ngi leen di jooy. jooyu daanuwaat ci seen kaw yéen samay doom yéen mënatuma leen a dékku def leen dara dina dina alku ci jooy de def leen dara bokk allahu akbar tey nee naa bu ko waxee tamit wax ji wax juñ mënti wax tamit góor gi mënu ko gëm ñun léegi suñuy wax daanaka mook sotti ndox ci suufa yem rek dégg nga ko la góor gay wax ay waay adduna bi dootuma fi dootuma fi neex la ba kër adduna bi bàyyi bàyyil jooy ubbil ñu ca nga bàyyi jooy njàqare yaa ngi koy sotti ci waa Kanaan yëpp jooy kañ lay jeex tijjil ma bunt bi bay koo koy taaw bi nag mooy Yahuza lan ngeen bëgg باي باي يا نبي الله عيناك يا هدى ربيين سلبتموني xool leen bëtu bàyyi ni mel léegi سلبتموني بالناميين تستكثرون علي أن أبكي فراقهما nee na ko sotti toujours bis mu ma jàkkaarloog yéen rek di am yaakaar ci yéen rek ngeen gën maa tegaat ay natt man de doyal naa ci dëkk bi ci be kanaan damaa war a dem génn damaa war a dem ci beneen dëkk dëkk sax ndax samay rangooñ perte Youssouf ah jafe-jafe yi naqaru bi ngeen ma teg ci Youssouf Benyamin ak Laawi leen da ngeen a bëgg daal toujours du ma mos a am bànneex mukk dem leen rek bàyyi ma rek bàyyi leen ma rek allahu akbar li ko waral yëpp mooy ñàkk tuub rek ak ñàkk wax dëgg lan ngeen bëgg lan moo tax mu leen ko bàyyi bàyyi leen sama papa lu lu ko dal yéen a ko teg ma ngay tëj volontaire yi bëggu bëggutuma dégg seen i baat damaa war a wéet ak sama doom ji Yusuf cey allahu akbar ah yàlla yàlla musal ci merloo kilifa mbokk yi ñu bàyyi xel lii nag Youssouf waxoon na leen ko bañ koy sànni ci teen ba nee na leen di ngeen ma li ngeen ma def nii day dootul jeex dana leen topp dana leen topp ba ci seeni sëti sëtaat أراك على الدوام ماثلا أمام ناظري بطلعتك الربانية بوجهك Youssouf xanaa dooma may ma jàkkaarloog sa jëmm ji nga xam ni taarub suñ borom bi moo cay feeñ لا حاجة بي إلى عين البصر لكي أراك soxlawu ma ay bët pour gis la waaye toujours yaa ngi yaa ngi jàkk yaa ngi nekk sama xol rek du ma la mos a fàtte munu ma laa fàtte yi la ñu defoon ci suñ mbokk ma Youssouf day moo ñu topp léegi suñu bàyyi gis ngeen fi mu àgg lu ne lu bon lu ñu dal rek ñu yeyoo nañ ko. لكن إبقاء عزيز مصر على بنيامين نكأ الجراح المندملة أنا أشكر عزيز مصر على ذلك sànq gi ñu sànkoon Yusuf waaye nag bi ci doon lekk mooy Benyamin mi nga xam ni kilifa ga téye na ko loolu tamit beneen beneen beneen naqar la. ba ñu tëralee suñu plan pour sànq Yusuf ñun yaakaaroon nañ sax danañ tuub ginnaaw bi parce que loolu la ñu waxoon dañu woon nañ ko def après ñu tuub gis nga de yàlla dindi na ak ak dëppalem ci ñun rocc na ko ñeent fukki at ak nii mënuñoo tuub te tuub bi lu yomboon la ci ñun. ñeent fukki at seytaane tëj suñu xeli rek. ah tarifu annani annani ana al man man Yahuza jàpp naan lépp maa ko def. kuntu azunnu anna at-tawbata amrun lil-ghaaya. yaakaaroon naa ni tuub yomb na waaye nekk tub yombul de allahu akbar. cey mbokk yi loolu la waxoon léegi waaye ñu xool euh, malaaka bi ñëw na nag pour fas yéene waxtaan ak ki nga xam ni mooy bàyyi ji nag ngir dalal ko yàlla na jàmm wàcc Yaaqub gis ngeen yéen a ngi koy doog gis ak moom nag. ndax yërëm nañ ko léegi yërmande yàlla mi ngi doog a wàcc ci kawam depuis ñeent fukki at yàlla doog a war a fas yéene yërëm yonent bi nag mu yonent yàlla yàqub ngir dalal xelam nag pour yaqin ji war a ñëw ci moom. malaakul waxyi. ah xanaa malaaka bi andi wax yu nga. rasuulu samaa. yow yaay ndaw li jóge asamaan. ñu ngi lay teeru di la tatagal. hal tara ma alladi uqaasihi fi gaybati ndax gis nga li may jànkoonteel ci ay jafe-jafe ak ay coono ci tàqali ko gi baa xam nga ni sonn naa amatuma pexe. man alladi xalaqa Yuusuf wa rabbaahu sagiiran yaa Yaquub kan moo bind Yuusuf bind yar ko ba muy nekk xale. Allahu taala. yàlla moo def loolu kay. kam waladan laka gayra Yuusuf ñaata doom nga am. ku dul Yuusuf am naa fukk ak benn. فهذا عهدنا بك من الجزع بفراق ولد ولك سواه أحد عشر خلفا يا yow am nga fukki doom ak benn kon nan ngay tàqalikoo benn di jooy منهم يعوض علي فراق يوسف nee na kenn mënu maa remplacer place kooku وحده الله لا مثيل له ويوسف yàlla mi nga xam ne amul moroom yàlla mën na loolu كنت أنظر في وجهه فيتراءى لي جمال الله dama daan xool sama kanamu doom ji mu jox ma taarub yàlla ba léegi ba mu tàqalikoog moom laa gëj a jàkkaarloog sama borom ca xam ba loolu yëpp day wane tàddang ak yàlla ak tawfiq ak suñ borom xoolali la wër lépp nee na du mbindeef yëpp nag ay nitu yàlla lañ Yuusuf nitu yàlla la damay xool ci jëmmam ji taarub suñ borom bi ومن أين علمت أن ليوسف ولاية عليك kan moo la wax ni Youssouf am na wilaaya am na xaritoog yàlla laqad raani asjudu bayna yaday damaa gis may sujjóot ci kanamam Youssouf dafa gént loolu ca boobu xale la yàlla ku fiir la illa qalbun waaxid benn xol rek nga am alqalbu alwaaxid li xabibayn xol benn xol mënta am ñaari soppe allahu akbar hey mi ngi defar góor gi de tet tet tet tet allahu akbar ah dégg na dégg na kàddu de nee na bu dee damaa damaa ëppal ci jooy yi ma jooy sama doom ca jooy ma ko yàlla kon na ma yàlla jéggal na ma yàlla baal bàkkaar boobu ma def ndaxte yonent loolu bàkkaar la ci moom maa ngi tuub di dellu ci yàlla. fa ana ara anna waladi Youssouf waliyullah. damaa gis ni Youssouf wali nitub yàlla la rek waaye bokkaale ma koog yàlla nag de. Yaaqub. hal taalamu mata aada allahu taala Ismaila ila xam nga Ismaël kañ la ko baayam delloowaat kañ la ko yàlla delloowaat ci ci doom ja baayam Ibrahim nee na ko waroon naa nekk xar mu ñu rendi mu remplacé ko Ibrahim ba mu demee ba bëgg ba nangoo rey doom ji ci la ko yàlla doo ko delloo doom ji ci la nag dellu si gi doo ko am nag waaye nangu ga ba mu amul yàlla yóbbu na Ismaël daanaka reyoon na ko ko li wax dëgg ba Ibrahim nangoo ñàkk doomam nangoo koo rendi ci la ko yàlla delloo doom ci nee na ko li nga wax dëgg la de. cey. amaana soppi soppee boom dana juum ci dajeeg soppeem man maa juum rek. ay waay war naa sama jaaxare waay ay waay juum naa waay. لكنني أقسم بالله الذي لا إله إلا هو maa ngi waat ci yàlla قد جدت قد جدت بهما معا damaa tame woon ci ñoom ñaar ñëpp واحد الأحد هو المستخلف والساكن بين أضلاع yàlla mooy wuutal mooy dalal doomu aadama kon dellu naa ci yàlla يسرا lu yomb rek lu jafe lu nekk rek lu yomb ci tegu تكون هذه نهاية الشقاء وبداية السعادة amaana tey jii nag ngay génn ci texe di dugg ci texe nag commencé am mbégte الهجر والفراق amaana tey jii ngay ngay ngay tàqalikook gàddaay goo gàddaayoon Sodom tàqalikook moom giseeg sa Sodom nan laa mën a xamee loolu dama lay jox xibaari Yuusuf ak waa Misra lépp Yuusuf léegi ñoom mooy yaakaari waa waa réew ma nag waa waa Misra léegi mooy kilifa gën ak yow ndaw li jóge ci asamaan yow yaa yor wax yu bi ana nga dem na allahu akbar mbokk yi lu yéeme ngi noonu kon nit dina nekk ci ay njàqare lu yàgg yàlla di ko seetaan rek waaye yàlla daal di ñëw góor gi bi nga xamee ni dem na ba ñàkk doomam ju mujj ji nag lépp aju ci jooy ñeent fukki at ci la ko yàlla doog a yebal malaaka nag mu doog ñëw dalal xelam fi nekk nii yaakaar naa jooyam doon jooy nee na ko it ñaata doom ngaa mun ko fukk benn mun ko kan moo tax ndax dangaa ñàkk ñëpp mun ko kenn laa ci ñàkk waaye sama xol demoon na mun ko léegi nag yàlla mënut ta bokk man mu ne ko ñaari soppi mënoo leen a sopp mënoo sopp yàlla ak sopp keneen gis nga moom la góor gi wax nee na tey ji dootuma jàmmat sama njàqare lan altamisa kashfa alkarb ah ma fu may làmbatoo ba dindi njàqare gi lu dul ma dellu ci yow yàlla léegi yàlla xam naa ni Yusuf mi ngi say loxo min dunika ya ilahi jël naa <laughs> yow jël naa sa jëmm ji remplacé ko fi ma def dugal Yuusuf sama xol boo woon dara mën naa mën naa jét mën na maa tàqalik Yuusuf kon yàlla maa ngi lay jéggalu dama kon maa ngi sàkku ndimbal ci yow yow yàlla kana Yuusuf mar'ata jamalika ant moo nekkoon seetub sabtaar gi wa ana kuntu fi l-mar'aat man ci Yuusuf laa doon xool pour ko gis sabtaar yow yàlla ما أزهد المرأة المحبة بالمرآة عينها nit ki nga xam ni bëgg na seetu ba muy xool di ca xoolub taaram kenn gënu kaa bëgg loola waaye puus naa seetu ba mu puus na le ma war a jàkkaarloog sa jëmm ji ngir xool sab taar xubbu waladi yusuf wasilati likay ahya xaqiqata al ashq bëgg gi ma bëgg yusuf jàpp naa ni dana nekk sama wasila pour ma àgg ci yow ah cofeel daal di mat sëkk sama diggante ak yow